mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli di salmal suñu yonant muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellusi ak yéen ci seen émission waxtaanu koor ci seen ramadan nekk ci weeru koor wi nga xam ni moom lañ tàmbali woon ci weeru koor wi euh, di leen nuyu bu baax ginnaaw bi ñu sant suñu borom julli ci suñu yonant muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam tey nekk kon suñ juróomeelu jotaay nga xam ni ñu ngi war a gis li nga xam ne mooy taxawaayu jullit bi ak comportement bi mu war a am jëmee ko ci saxaaba yi loolu waxoon nañ ñu wax ni kon li ci jiitu mooy mahabbatuhum fillah li annahum sahibu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa nasaru din wa daafaw min ajlih li leen war a bëgg saxaaba yi bëgg leen war a bëgg ndax ñooy àndandoo yonente bi ñoom la yàlla tànn tànn ñu ñun tànnul suñuy maam mais ñoom la tànn ñoo dimbali diine lislaam ñoom ñoo dimbali diine l'islam défendre ko dimbal diine l'islam défendre ko tey wax naa la da ngay dem ci réew yu sori nga dem Russie dem Afghanistan def dem Syrie dem France ba Poitiers dem li nga xam ni moom euh, Espagne dem Maroc dem Libye dem Soudan fekk fa ay bàmmeelu saxaaba te saxaaba yi dëkkuñu woon foofu lan moo leen yóbbu foofu mooy dem jàngale ak jot diine lislaam kon dañoo taxawu lislaam dimbali ko xeex xare yi ngay dégg yépp muy uhud di badr di xunaynin di fatxu makka di sulxul xudaybiya ah di xaswatul moraysia di xaswatu al ahzab xaswatul xeex yi ngay dégg yépp saxaaba yi ñoo nekkoon ci xeex bi kon dañoo taxaw diine ñoom dëgg yàlla taxaw génnee jaasi di xeex pour lislaam taxaw xeex ak yéeféer yi xeex ak noon yi kon ñoom dañoo dimbali ci ne dañ leen moo tax dañ leen war a bëgg ñaaral bi at-taraddi anhum mooy di leen ñaanal ngërmaande yàlla di wax radiyallahu anhum parce que nag dañoo mérito yàlla gërëm leen ndax li ñu liggéey ak ñaanal leen yiw bokk na ci itiqaadu fadlihim mooy ñu fas gëm ni sahaaba yi dañoo am ay ngëneel yu leen yàlla jagleel wa annahum xayru naasi baad al anbiya ñoo gën ci yonent yi gannaaw gannaaw yonent yi ñoo gën ci nit ñi comme ni ko alayhi salatu waxee ci bu wér xayru naasi qarni ki gën ci nit ñi génération bi gën ci nit ñi mooy sama siècle sama génération xadis boobu mi ngi ci Buxaari bokk na ci at atasabut bi ma yunsabu ilayhim min aqwalin wa amal daa di vérifier lépp lu ñu la wax ne saxaaba yi ñoo ko wax nga vérifier lu ñu la wax ne ñoo ko jëf nga vérifier balaa nga ci jël benn position bokk na ci juróomeel mooy mahabbatu man yuhibbuhum képp ku bëgg saxaaba yi da nga kaa war a bëgg waaye muadatu man yuadihim kep ku len bagn dang ka wara bagn lutax parce que sahaba yi beug len diine la diine mo sant ñu beug len bagn len weddi diine la jurom ñaaral ba qiraatu fi akhbarihim mooy di jang ci seeni khabar li al fawaid al mawaiz ngir meuna jël ci ñom ay jëriñ comme niko yalla waxe waxee laqad kaana fi qasasihim ibra nek na ci seen nettali ya ay leçon yuñ ci wara a kon sahaba dañu wara jang seen dundu jang sen jar jar sen yar sen xam-xam sen teggiin sen deggu sen ngëm sen bëgg diine sen dundu diine sen jëfe diine sen tasaara diine bu ko defee ñun buñ ko jàngee ñu jëm leen caa roy bokk na ca nashru siratihim fil mujtama wa bayan fadlihim lin nas moy tasaare sen dundu ci bir nit ñi ba nit ñi xam ñoy ñan ak leral seeni gëneel tay nit ñu bari tay bo defon micro trottoir ci mbedd bi ne leen tuddal leen ma juróomi sahaaba wala juróom benn bu ñu la tuddalee Aboubacar ak Omar ah Ousmane ak Ali ba moo ci ñu yokk ci imam Malik wala ñu yokk ci ku dëkk fii ci biir dëkk bi fii dëkk bi ñu dëkk nii ne la sahaaba la xam nañu ay waykat xam ay footballkat xam ay fecckat xam ay bërekat waaye sahaaba yonent bi dëgg nga xam ne dëgg-dëgg ñooy góor yàlla yi ñu bari ci nit ñi dañ leen a réer xamuñu leen wala xamuñu sax na ñoo gën ci xeet bi léeg-léeg ñu ci nit ci seen kaw te loolu njuumte garaaw la bokku na ci adamu itiqad ismatihim moy baña fas li nga xamne moy ne sahaba yi duñu joom dañu am isma bal hum barkal bashar yaquuna fi khata ay nit lañu rek dañuy tab ci njuumte comme niko alayhi salatu wasallam waxe kullu ibn adama khata mbolem doomu adama yàlla bind dañuy joom te ñu gën ci ñuy joom moy yi nga xamne buñu joomé tup bokku na ci wa maa xataihim illa anna xasanaatihim aksar wa akbar min sayiatihim ñu gëm ni nag lu ñuy juum juum seen mbaax ak seen yu baax yu ñu def ak tuyaaba yu ñu liggéey mu ëpp li nga xam ne mooy seeni njuumte su ko defee njuumte yi du yàq dara ñoom day mel ni nga jël puso rek puso dugal ko ci géej soo génnee la cay des daanaka géej gi dara génn ci bokk na suñ taxawaay jëma ci saxaaba yi adamul xaw di moo ñu bañ di xuus fii maa jara bayn maa fii maa jara baynahum fii maa jara baynahum min xusumaat wa fitan mooy bañ a xuus carrément histoire yi doxoon seen diggante nga bañ ci xuus di jël position te yow version bi nga jot xamoo ndax wér na wala wérul comme li doxoon diggante Muawiya ak ay Aïcha ci maarakatul Jamal diggante Ali ak Muawiya ci maarakatu Siffin diggante yenn saxaaba yi ci seen biir coow yi nga ci doon dégg nga xam ne ñoom ay nit lañ duñ malaaka waaye nga bañ cee xuus bay jël position di jam ñenn ñi di xeeb ñenn ñi am ñooy faral loolu jullit da koy éviter ñoom ñëpp yàlla gërëm na leen wa kullan waadallahu alxusna bokk na ci adamul xawd adamul xolow fiihim ñu bañ a ëppal ci saxaaba yi bañ a ëppal saxaaba yi kenn du leen manqué respect kenn du leen tooñ kenn du leen xas kenn du leen saaga mais kenn du ëppal ci ñoom ba teg leen niveau boo xam ni niveau yonent bi la wala teg leen niveau boo xam ne niveau yàlla la leen ñaar yëpp ahlu sunna dañ koy tere mooy saxaaba yi kenn du ëppal ci ñoom waaye kenn du leen manqué respect aussi loolu ñu bàyyi ci xel moo tax adamul xuluwi fiihim ba ñu ëppal ci ñoom bal hum basar ñu gëm ne ay nit lañ rek walakin fadluhum kabir ind allah mais nag am nañ ngëneel yu rëy ci yàlla parce que ñoom diine ji ñoom ñoo ko tasaare ñoom ñoo teew ci kanama yonent bi ñoo gis yonent bi ñoo dégg yonent bi wax ñoo ànd ak yonent bi julli ñoo ànd ak yonent bi fu woor ñoo ànd ak yonent bi tukki ñoo toogandoog moom ñoo ànd ak yonent bi lekk ñoo fanaandoog fanaanoo yonent bi ah loolu tuutiwul adamu sabbihim bokk na ci bañ leen a saaga yonent bi wax na ci xadis bu nekk ci buxaari laa tasubbu ashaabi bu leen saaga sama saxaaba yi kon ku leen di saaga yaa yées comme ni chia yi def lislaam tere ko yonent bi tere ko nga leen di saaga loolu nit ku nar a alku rek mooy def loolu mais saxaaba yi wax dëgg yàlla nekkuñu ñu ñuy saaga lu tax mooy alxuraan ci ñoom la wàcc ñoo mokkal alxuraan ñoo dund alxuraan ñoom ñoo ñu jottali alxuraan hadith yonent bi ñoko ko fekk yonent bi di wax ñuy deg ñom ñoo jël waxu yonent bi deg ko capté ko netté lañu ko daal ñukoy agalé ñom ñoo jël waxu yonent bi alayhi salatu salaam dund ko alquran wàcc na gërëm na leen radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen waradu anhum ñoom gërëm na yàlla borom bi wax ne wassaabiquuna al awwaluun min muhajirin wal ansaar wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum ñi nga xamni ay 100 ci suratu tawba ñi nga xamni ñoo ñu ñëk tuub duggu ci l'islam ak ñi nga xamne ñooy ñi nga xam ne ñoo mujjee muy lansaar yi muhaajiru ya hijra jóge Màkka dem Medine ak lansaar yi nekkoon medin mu ne ñoom ñëpp nekk nañ ñoo xam ni ah, def nañ lu baax yàlla gërëm na leen yàlla gërëm na leen kon ku yàlla gërëm nag boo ñëwee di ko saaga wala nga koy xas wala ngay génne ay sikkam wala ngay sikki sàkk ci ngëm yàllaam wala ngay sikki sàkk ci saxaabaam wala ngay sikki sàkk ci lislaamam wala ngay sikki sàkk ci liimaanam yow la ñuy sikki sàkk sa diine yow ñooñu képp ku sikki sàkk seen diine la ñuy sikki sàkk sa نشهد لمن شهد له رسول منهم بالجنة بيب صحابة بخامنة يونان عليه الصلاة والسلام وحنا تي حديثنا صحابة بي دمنا أجنة دينكو يقم كم أبو بكر كم عمر كم عثمان كم علي كم حسن كم حسين كم خديجة كم عائشة كم عكاش ابن محسن أه؟ كم بلال كم أبو عبيد عام ابن الجراح كم سعيد ابن زيد كم عبد الرحمن ابن عوف كم طلح ابن عبيد الله كم زبير ابن العوام ñoo ñëpp dañuy gëm Euh, nitu àjjana la Saad ibn Waqqaas lu tax mooy yonent bi moo wax ci xadis tudd seen tur ne ñoom ñu ngi àjjana toog na mu ne Bilaal dégg naa ngay dox biir àjjana looy def Bilaal ne ko awma lu may def de mu ne ko amoo loo def fàttaliku mu ne ko xanaa su jàppee dinaa julli ñaar rakk na benn kër àjjana laaj kër gi kan moo ko moom sax na ko Omar ibn Xattaab ko moom mu ne yii fiir daa di dem mu di ko nettali Omar Omar ko yonent bi yow la yow yow dinaa la fiire yow duma la fiire yow duma la fiire kon nga gis ni képp ku texte wax ne ci saxaaba yi ne mi ngi àjjana dañuy gëm ne ci turam ne kooku mi ngi àjjana ku texte waxul ne mi ngi àjjana ci saxaaba yi dañuy gëm ne kooku ëllëg àjjana la jëm bokk na ci naata naataqidu anna kullahum udul gëm ne saxaaba yëpp dañoo wóor dañoo maandu duñu ay fenkat duñu ay workat duñu ay tappalekat duñu ay tricheurs yi ay tricheurs duñ ay naxaatekat duñu ay nit ñu bon waaye ñëw gën ci xeetu lislaam wasiqaat ñu wóor lañ li radallahu anhum parce que yàlla gërëm na te yàlla du gërëm ku wóorut yàlla du gërëm ci alxuraan ku bon yàlla du gërëm nitu safara yàlla du gërëm ku yées yàlla du gërëm ku baaxut yàlla du gërëm ku sikk yàlla du gërëm ku tubbi yàlla du gërëm koo xam ni nekkul ci lislaam te yàlla wax na ni laqad radiyallahu anil muminin is yubayiunaka taxta shajara yàlla gërëm na saxaaba yi al muminoon ñi nga xam ne ñoo ñëw di jaayanteeg yow ci suufu garab gi ñan ñu doon jaayanteeg suufu garab gi yonente bi ñan la ahlu bayatu ridwan mooy saxaaba يالنا غرمنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ينتبه عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني سيكل بيغن تنيني نيني موي سيكل بيغا خامني دون ماكس دوند ماك ساماي صحابه جينيراسيون بيغن ما جينيراسيون جينيراسيون بي دوند ينتبه بان جينيراسيون مو دوند موم صحابه يل ينتبه ني ньоño گن يو گنا ньо ньо ييس ينتبه ньоño گنا باخ گنا باخو ньо واو كو ويدي واخو ينتبه يو نون لاي ديف نون لاي ديف كون صحابه كيب wala nga leen wala nga leen di xeeb su boobaa wax dëgg yàlla xamoo seen dayo ñun li ñuy dund ci diine tey bu ñu xamee naka la ñuy jàppee xam nu ñuy tiimee xam nu ñuy sangoo set xam nu ñuy jullee xam nu ñuy wooree xam nu ñuy génne asak xam nu ñuy rendee xam nu ñuy ajee mag xam nu ñuy umrawee xam nu ñuy jàngee alxuraan xam nu ñuy zikree suñu jaamu yàlla yëpp saxaaba yi ñooñu ko nettali ñoo ko jëlee ci yonent bi mokkal ko daal di koy nettali ñoom Abu Hurayra Omar Abu Bakar Ibn Abbas Abu Saïd al Xudri Abdullah ibn Mas'ud ya Aïcha Khadija Safiya Zainab bint Jahsh ah Hafsa ñii ñoo ñu ko nettali Abdullah ibn Omar ñoom ñoo ñu ko nettali ñii la ñii ñoo ko nettali Abu Musa al-Ashari ñii ñoo ko nettali kon Anas ibn Malik kon ku ñëw di leen xas wala nga leen di jam wax dëgg yàlla bu yeboo nga bàyyi dund diine parce que mboolem li ngay dund ci diine di ko jëfe ñoom ñoo ñu ko nettali alxuraan bi ñoo ñu ko nettalil ba mu agsi ci ñun nettali ñun ñu koy jàngi alxuraan bi mais firi alxuraan sax pour nga dégg ko saxaaba yi ñoo nettali firi mi lan la aaya bu nekk lan lay firi kon mbokk yi ñooñu wax dëgg yàlla dañ leen war a ñaanal yàlla dina war a ñaanal war leen a gërëm war leen a fonk war leen a wekk war leen a respecté war leen a bëgg war leen a sopp war leen a faa war leen a ñaanal waaw yàlla fay leen yiw yu bëree bëri képp nit nit ku nekk lépp loo def lis ci lislaam ci lu baax saxaaba ni ci am tuyaaba parce que ñoo la ko ñoo la won yoonu ñoo la ko xamal ñoo ko jàngale ñoo ko tasaare kon ñooñu tuuti wuñ ci xeetu lislaam moo tax lislaam xeet yu lislaam nit ñi gën a ci lislaam mooy saxaaba yi ñi gën a màgg ci lislaam bu yonent bi jàlle mooy saxaaba yi ñi gën a baax mooy saxaaba yi ñi gën a jub mooy saxaaba yi ñi gën a maandu mooy saxaaba yi ñi gën a mat mooy saxaaba yi ñi gën a ëpp xam-xam mooy saxaaba yi ñi ëpp imaan mooy saxaaba yi ñi gën a jullite mooy saxaaba yi ñi gën a ragal yàlla mooy saxaaba yi kon ñi wax dëgg yàlla nit ñi bu ñu xamoon loolu ci ñoom daañu leen gën a fonk kon incha allahu taala jataay bii jëmoon saxaaba yi fii la yem tey dinañ jox beneen jataay mu jëm ci jullit bi digganteem mu juróom-benneelu jotaay bi jullit bi digganteem ak li nga xam ni moom mooy ay mbokkam yi ko jege ay mbokk jege ñaaleem ban comportement ban taxawaay la war a am vis-à-vis jëmale si ñooñu kon dañu yem fii ba beneen jotaay wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu لنا لا لا لا يا لا